waaw boo fa jugee da ngay comporté woo comme nit correct rek waaw. Euh, sa koor sa woor. Euh, euh, bi ma amee ay ay 17 ans 18 ans. waaw parce que dama daa am fu ma jugee transhumé daal. waaw yaa ngi gën a waaw waaw waaw ndeysaan daa wax 17 ans mais 17 ans euh, nga commencé woon 17 ans 56 ans 17 ah, mais mais sa religion daan nga woor foofu. bon sama religion daanu ma woor. waaw daanu ma woon woor parce que période boobu noonu xam nga li ma remarqué woon pariwul bu ma amee âge bu tuuti bi. yaa ma gën a xam boobu majeur gu ma daal. waaw ah, ah, daal ma woor moom. waaw métti na mais man dama ne lu yàlla santaane du métti ci jàmm bi waaw da def rek ndax suñu borom moom moo sant ñëpp waaw kon bu santaanee rek méttiwul. Ah, tuuti parce que mbër ak diine lañu la wax à l'âge de 17 nga nekk chrétien jékki-jékki benn instant à l'âge de 17 ans woon kon lu ko ñu wax ni kon avant ngay génn euh, euh, ci kii bi euh, loolu noonu distance bi nan la demee mën nga see expliquer distance bi distance bi comme nan comme 17 ans nga commencé mm. comme musulman. Mm. Euh, comme yow. yow ñëpp xam nañu ne jàpp bi nga nekk. dëgg la dañ xaw kii. day xaw a lii waaw day xaw a léegi léegi bi mooy xam nga di nga def comme sa morom yi ni ñuy def di dem syndicat boo jógee syndicat des fois nga dem ah, mbalitu tubaab xam nga. des fois fii si pont bi amoon na ay yu fi nekkoon mais yàgg na loolu ndax booy bari fekkee wuñ ko fi waaw walla nga dem géej noonu lañ ko doon jàppoo daal waaw ah, des fois nga woor sax gars ne dañuy dàqi dañuy wër di dox rek ba ker ñu tëdd foofu noonu lañ ko doon doxalee. Mhm. Euh, waaw parce que dama daan ànd ak ñoom sax. gars bu ñu wooree. man du ma nangoo lekk parce que damay ànd ak ñoom ñoom dañoo woor suñu waxee ne waa yow doo lekk man leen non damaa woor. non boobu nekk bu moom bu ñu waxee man leen damaa woor su may lekk sax duñ ma gis bu ko defee ma ñëw àndaat ak ñoom toog ndax bu ngoonee ma mun a ndogoon ndog ñoom waaw yaa ma gën uh-huh. uh, a. waaw parce que man sama xarit yëpp yëpp yëpp yëpp ñi ma fondal ñëpp ay musulman lañ. ñëpp waaw ñoo doon ànd guddeeg bëccëg ak ñun ak ñoom sox ak ñépp ñoo doon ànd. waaw loolu suñu boroom moo ko namm ci man mu def ko ndax suñu boroom moom ku mu namm ci yoon boobu rek dina la indi waaw te amaana xëy na dakaa namm ci ñun moo tax mu yóbbu ñu fa waaw te dañ ciy sant bu baax a baax. ñun ñëpp. te si yow la jógee. waaw dañuy sant rek sant xam nga loolu moom mënatuma ci xuus bu baax quoi damay bàyyi noonu rek li si des moom mooy jëf rek. mbër xam nga instant bii mbër ak diine lañ wax. Mhm. bien vrai euh, mhm. nga xam ne ñoom ñoo lay seetaan. te mhm. dañ ne ak diine ndax bii dafa spécial. ndax tamit gis nañu jàtt li euh, ci chrétien la woon. après moo ñëw tamit nekk musulman. mu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla macha allah il suffit que gis parce que lépp benn la. Mm-hmm. ñun mm-hmm. parce que ñoom tamit suñu tamit loolu bu baax a baax ndax ku ci am am nga ci xarit. am nga ci euh, ay mbokk am ci ay mbokk sama famille sax am na ñoo xamante ni ba ah. léegi ñenn ñu tuubuñu. teel micro bi amee. Mm-hmm. Euh, léegi nag euh, mbër ak tamit tey ku mel ni jat li tey kii la ci daal dafa nekk loo xamante ni am na. exception la. tey jat bi eh, mën nañu woon émission bi exception la parce que jat bi tey mbër ak diine xam nga amaana tur bi sax daf koo fekk si moom ndax lu am solo la mais tey euh, jat li yow nga nekk si à l'âge de 17 ans nga commencé woon mhm. tey nga nekk ci benn âge boo ni amaana li ñuy gars yi daal def defoo mhm. loolu am lu xam ñu bari dañu dañu am benn yërmande laay wax mhm. ñu bari tey si jat bi ndax gis nañu wax boobu am na ñu bari tey même sax am na ñu même ñu soppaloo jànni sopp na ko parce que gis nañu ni ko waxee ak xol affaire bu dëgër ak diir lañu wax mhm. mais tamit loolu noonu dana doon ak mhm. la jógee yàlla naam yàlla daf mhm. mu nekk loo xamante ni tamit lu naan gëm-gëm mais tamit kii ñu ci tudd tamit jànni waaw loolu amour bu ñu yàgg bëgg la ndax ñun moom julli man moom laa julli dama ko yàgg bëgg avant ma cee dugg waaw kon yàlla bu demee ba niital ma ba ma ñëw ci ba yàlla def ci ñëw boobu ma ci ñëw sama rakk ak sama waajur yëpp topp ma ci damay gën a sant waaw maanaam comme li may wax boo gisee nanguwuma ci xuus mooy que ni fu jëf ne wax amatu fa kàddu waaw taxas nañ dugg li ñu ci raw dafa bari waaw dañuy jéem a dabu xool naka lañuy ñuy gën a bokkee te jullit laa yomb na ci kàddu waaye doon ko dafa jafe

balaa ngaa ñibbi si six heures day jot te foofu mënoo toggal sa bopp kon da ngay takk sa biir nga liggéey ba wàcc nga doog waaw kon woor bi du metti daal mooy li may wax rek suñu borom bu santaanee du metti ndax moo lay kàttanal ndax yéene bi nga am pour defal ko ko waaw. waaw ngi ciy jéem maa ngi ciy jéem. <laughs> Ah, non noonu am na sama benn xarit boo xam ne moo may jàngal mooy Abdou. waaw mu ngi fi doomu imam bi imam bi wàññeeku jamono yële yàgg na tuuti yàlla na ko yàlla yërëm te jégal ko ay bàkkaaram waa doomam sama xarit la moom ndax des si moom laay dem mu may jàngal. Mhm. non jëli daanul wóor wóoru gaal soq moo doon wóor wóoru gaal soq. <laughs> non daanu ma woor wooru gaale c'est que nag man xam yu bari doonu ma si bëgg a dugg quoi parce que xam pour man man li ma mës a jàpp sama àdduna sama moroom góor lépp lu mu def ci lu baax man bëgg naa ko def te défi boobu day nekk ci man quoi waaw loolay tool. Euh, léegi parce que nit ki moom xam nga boo xiifee moom. lépp loo yaakaar ni loo gis rek danga naan li dama koy jënd yóbbu ko ndax xiif gi boo bëggee faj xiif gi waaw mais boo ñëwee yow sa xel xam nga ni lii yëpp mënoo ko danga ciy def li nga mën rek bàyyi li des waaw. ñett la. <laughs> <laughs> waaw ñetti ràq la. waaw saar bi nga xamante ne boobu dañoo ne ku ko mënul naafeq hmm. waaw mooy xul yaay yaa kaafiruna <laughs> waaw na yeneen ak yeneen. mais mais dafa am bëri bëri xam nga sa mhm. <laughs> ne saarum bëri yi muy commentaire naan saarum <laughs> mais jat bi jat. mais mais mais mais mais man man man man jàdd jàdd yàlla bi mais mais mais yow mais jàdd mi mi mais supporter na de. waaw mais affaire da ngay jéem rek da ngay jéem rek suñu borom moom xam nga boo bëggee ci ay mbiram faaw nga gëstu si di ci xuus mais bul fàtte ni Naaru Sogaas mooy suñu grand frère te Naaru Sogaas jeexal na kaamil bi de. Ah, waaw jeexal na kaamil bi bu baax a baax waaw. Ah, ah. waaw xam nga ak yeneen saar da ngay da ngay kii xam nga julli bi moom bu fekkente ne daa am ñoo jiite jarul muy gudd na gàtt ndax xamoo li nga boot lan la comprendre mais su fekkente ne tey yow kese yaay julli waaw bu la neexee nga taxaw foofu ba fajar yaa ñëw ñoo ne ma seetu jatli seetu jatli seetu jatli te jat baax baaxee ko gaay waaw kon dañuy jël inna tey naa kaw kaw sara mhm. fasalli li rabbika wal xar mhm. nga ne <laughs> c'est que bu ko caméra ni bu la tiimee mooy loolu noonu quoi ah, waaw wala wala wala nga dóor wala nga dóor kii wala nga mbëri rek xulul laa wax. non boobu noonu boobu yomb na di mu gën a sori waay kon baa baa ma jël Isa jaaxa. Ah, ah. na danga naa Isa jaaxa nasrullaahi wal fathu wa ra'ayta naasa yadxuluuna fii diinillaahi afwaajan fasabbih rabbihi wastaghfirhu innahu kaana allah. Ah, tey koor tey bu bëree bari bari bari ndax man sax même bu dul weeru koor am na jour yoo xamante ni dama koy bëgg di woor waaw moo xam weeru koor bu dul weeru koor mhm. bu baree bari bari lu suñu suñu borom daal lim ci def loo xam ne suñu borom nee na moo koy fayal boppam waaw kooku lu ci waaye def rek def ci loo mën mhm. waaw même bu dul wooru koor sax nit ci sama xel bu gàtt dafa war a maanu waroo dugg ci loo warta dugg waroo laal loo moomul waaw war nga xool daal lépp loo xamante ni soo koy def ku la ci fekk du la xeeb du la yedd waaw pour ah loolu de borom xam-xam yi ngi ciy wérante de te ñun moom suñu alluwa daal soriwul eh. waaye daal li gën a dal sama xel mooy soo wooree sa lépp day woor sa soxna du la rëcc yenay fanaan waaw pour man waaw. mais boo bu la neexee daa loolu kay ala kulli bu la neexee rek eh. waaw. na am ndax lan am naa lan bi. déet balaa fajar bi yow balaa ñoo nodd war nga bàyyi fu nga nekkoon lépp de toog jàpp taxaw xaar suñu borom buñ noddee rek nga ne waaw. bu dee si nag ñu dalal ki nga ne bari parce nit ki am na foo toll wala dara am fu mu yëg tey ba jël ko nii xam nga. am gi ni ma koy dundee mooy xam nga jaamu suñu boroom temps bi nga amul woon am nga ko fii ndax yitte yu bari dematul te weeru koor gi da ngay gën a am jot pour man soo doon jàmm benn di nga yokk nga def vingt. ndax lii la rëccoon ci ginnaaw nga mun kaa dabu amaana munoo jot lépp waaye nga jot xaaj bi waaw gën a jéggalu suñu borom di ñaan tamit ndax jullit ñaan rek moo ko war. Euh, waaw xam nga yenn yi tolluwaay la ak sàggan ndax nit ki soo tàmmee jaamu suñu borom bu weer koor day gën a yokk waaw man mënuma consevoir ma ne dama woor duma julli waxtu yi wala ma tëdd ba waxtu bi waas weesu ma dog ko dabu yow wooroo da ngay xiifal waaw waaw maanaam man ci sama gis-gis bu gàtt sax nelaw bi warta bari waa nelaw bi tuuti rekk li si des yëpp nga jox suñu borom ndax ñun dañoo sikk dañoo mën a tooñ de dañuy tooñ rek suñu borom moom saa ñu xëyee def nañ loo xamante ni su ko neexoon léegi mu yóbbu ñu waaye moo ne tooñ leen ma jéggalu ma waaw ñu ngi tooñ nag di dëkk ci jéggalu waaw. <laughs> bu ñu mhm. waaw mooy li rek du koor ba koor lañ war a jàmm suñu borom suñu boroom saa yu ñu xëyee dañ ko war a jox li mu moom teewuñoo doxi li ñu moom waa ndax fii àdduna la ndax mbir mi ñaar la tey ak suba la nit ki nag boo xam ne tey ak suba day yaakaar danga ko wax dangay nelaw tey suba suba la maanaam boo déggee tey ak suba dafa yaatu ñu ngi ci lan àdduna après yowmal xiyaam lañ jëm waaw mais kan moo buggut a fayeeku foofu tey fu mu toll ni ñu ñu bari dañoo bëgg a voyage tey boo génnoon fii di dugg dëkk jàmbur lu ñu lay laaj sa visa ngay joxe ñu xool bu valable nga dugg bu valabu valableul nga taxaw mais bisu penc bu jotee. suñ la laajee sa visa yoroo ko nooy def dangay dem taxaw xaar mais nag yàlla suñu borom yërmandeem yaatu na ñi koy def ñi nga xam ne dañuy xaar ba weeru koor ñu jàmm yàlla na leen suñu boroom gindi ba nga xamante ni dina leen xiir ci boppam ba ñu mun kaa gën di jaamu waaw. xam diine ji moom yaatu na waaw mais man moom Serigne Babacar dafa yàgg nekk sama sëriñ waaw man sëñ Babacar mooy sama sëriñ mhm. waaw ndax nekk gu ma taalibe seex boo déggee taalibe seex mooy ki jël wérdi man soo pay seex laa jamono ji mais ñaan naa yàlla bis ñëw ma jël wérdi su ma matalee daal waaw incha allah euh, mosuma feeñu waaw mais da déglu ay histoire am ay jaar-jaaram xam nga waaw man moom dafa ma yàgg a neex waaw. waaw boobu commencé naa gëstu ndànk-ndànk di xool waaw xam nga fii moom boo dégloo rek dégg waaw ci loolu lañ toll.